ça c'est mon ami mon grand. ngi siyaar. macha allah Lamine Samba ñu installé ko. Ah. suñu doyen la suñu mag la suñu xarit la. waaw ba bi baax na. Alaaji Lamine Samba ñu ngi lay ziar. maa ngi leen di ziar. yaa ngi en direct ci émission bu tudd Diber Sport. Diber. waaw mooy dimanche. voilà c'est ça. maanaam vous l'avez wolofisé. voilà ah, je vous félicite. merci parce ñu fàtte pak bañ la yeewee woon te vraiment pour waxante dëgg vous avez révolutionné la lutte d'une autre parce que avant télé yi ñoo fi nekkoon ak journaux yi léegi hmm. télé yi ak journaux yi ñu ngi fi mais dafa am leneen lu ko révolutionné mooy télévision ci poche bu njëkk boo ratee lamb rediffusion sax problème lay doon. léegi nekkal Fongolimbi nekkal Dunguwuru Alpha. nekkal plage. nekkal di def lune de miel. avec ton téléphone dans le douleur de ci nga xam moom mooy lamb donc vous l'avez révolutionné on félicite. mu nekk loo xam ni je sais que y pas de jaloux. mais les jaloux vont maigrir. parce lii dafay gën a jëm kanam parce que léegi sa xaalis sa téléphone nga koy denc. information bu gën sa téléphone nga koy denc. loo bëgg xam sa téléphone nga koy denc nga koy xamee. donc kon tey dem na toll foo xamante ne nii am na ñu nekk ci kaw avion yi. am na ñu nekk ci bateau yi. am na ñu nekk ci hôpitaux yi. am na ñu nekk ci dispensaires yi. ñu ngi seetaan jamono ji lamb te yéen ko waral. kon dama leen di ñaanal yàlla defal leen jàmm. yàlla aar leen yiir leen suturaal leen. ñun télévision yi léegi rediffusion la ñuy def. <laughs> et c'est vrai c'est la triste réalité. Ah. moo tax télé boo ci gis presque léegi am na site internet. waaw <laughs> sinon kon course vers information. dañuy wax ni ko kon raw nañu dimanche passé nga nekk fii ñu may ñu seetaan combat bu am solo diggante ak Tapha Tine ak Balla Gaye 2 combat amoon ak déroulement bi ak li jël bi ban jàngat nga ci def. le meilleur a gagné. dama ne. waaw. waxoon naa a mën a wax. waaw surprise bi moo nekkoon Tapha Tine daan na Balla moo nekkoon surprise. ok xam nga lu tax ma dañ daje Tapha mu gën a nekk xale. waaw. Balla daan. waaw Balla daan Yaxya Diop Yékini. mi toog 19 ans daanu. Balla daan Mohamed Ndaw Tyson. Balla daan Baboy. Balla Gaye daan Moustapha Gueye nga xam ni lamb bu doon kaamil la Moustapha Gueye da koo naan. Balla Gaye daan daan mi nekk roi des arènes deux fois. kon kooku tey muy daje ak Tapha Tine di ko jëlaat 13 ans après kon Balla moo nekkoon super favori mhm. mais Balla dafa am dafa am loo xam ne da ko yàqaloon. waaw mooy méforme bi mu nekkoon. loolu moom moo tax gars yi jël ni est ce que Balla Gaye bi doon bëri ak Bombardier est Balla Gaye bi doon bëri ak Boy Niang moo mu nax ñëpp. waaw léegi nag li ma lay wax mooy ku daan doo am sikk. ku daanu mooy am sikk. mais keroog bu Balla Gaye daanoo bu daanu woon nga gis gars yi sikkal ko léegi nag moralu Tapha nan lañu war a mën a def ba dellu siwaat loolu dama koy bàyyi ak Iba Kane ak yow ak suma doom xam nga lu tax kenn warul décourager loo Tapha Tine ndax Tapha Tine takkusaan bi mu am fii contre Eumeu Sène dóor Eumeu ba ay mbokkam digg jël si Eumeu Sène loolu rek war na dal xel toog na dix ans daanuwul Tapha Tine bëri na combat royal échec ko contre Bombardier. Balla Gaye léegi fan lay jëm. xam nga boo nee Balla fan lay jëm Balla n'est plus demandeur. waaw. Balla tolloon na foo xam ne wàcc na. bëre xale yi jox leen chance. muy Boy Niang Boy Niang daan ko. mu fexe waat jël ki nga xamante ni nii dañu ne woon c'est le mu daan ko avec la manière kon Balla jamono jii ñu toll nii. bokkat na ma wax na waxuma sax bokkat. ils l'ont dit que Balla jël na avance Albourakh. ok ils l'ont dit. ok mais les Sénégalais ils oublient vite. oui la wax ne la combat Eumeu Sène ak Balla Gaye. waaw Gaston production moo ko taxawaloon. ba ñu régulariser ko ba mu régulariser am date. après ci la Balla Gaye am gaañu gaañu. ñu aj combat léegi nag jàpp leen ni Ama Sène dafa ameel avance Gaston Production. Balla Gaye amal leen am non non Balla moo amul avance. Balla mais Balla ci li ñu dégg. waaw moom. waa kër. Ah, ah, ah. euh, Alboura. déedéet. Gaston Gaston ñoo ko ameeloon xaalis. parce que ñëpp dégg nañu Aziz mu ne. Balla Gaye bu muy bëree ak Boy Niang 120 millions la moom te 20 millions la 130 20 millions lañ ko fayoon. mais est ce que mën nañu régulariser combat aussi te avant te xaalis dugg est ce que loolu mën na ne. mais sëñ Ndiaye président CNG nee na régulariser wuñu combat moom donte ñëwoon nañ foofu mais nee na régulariser wu man keroog bi ma ko waxee dama tiit mu ne combat Eumeu Sène ak. Euh, Balla Gaye Balla Gaye régulariser wuñu ko. CNG mais Sane Ndiaye nii loo ma ko waxee. waaw ok léegi xam nga kon mën wax ne c' pas officiel c' est officieuse. waaw mais ce qu' on peut mooy ki nga xam ne mooy Amaseen mi ngi ak avance su Gaston production. mais loolu lu tax du poser problème. waay barki Demba Ndiaye gis nañu fii nii. kii di ama amoon na combat ak ñaa deux. waaw am blessure ama neex jëli caatu daaw de Fall. kon avance la ci biir kaw avance. kon avance moomu mu yor terewul mu bañ a jël adversaire bu ko neex. mais li leer ba leer mooy ñu wax ko. waxuñu leen ko xelu géejawaay xolu géejawaay yaakaaru géejawaay mooy ñu am troisième combat diggante Modou Lo ak Balla Gaye numéro 2 bul nëb ñoom loolu la ñu bëgg ah. mais Modou Lo da leen déchanté ah, waaw ah. joxewuma jëliwuma jëliwuma est-ce que Modou Lo ci kanam ndax xaalis ndax dama ne yaayu Modou Lo moo wax ñëpp di dégg mhm. mu ne Balla Gaye doy na sëkk waaw te ku xam Modou xam ni ku fonk waajuram la. dañ ko laajaat bërki démb. waaw ñëpp toog di ko seetaan mu ne joxewu ma revanche du ma jëli revanche. waaye man dafa am lu ma la ciy dolli lu gën a lu gën a simple. mooy xaalis. lépp lu mu jëli indiwu ko daf ko faa fekkul. dëgg la <laughs> ko. xaalis. lépp lu mu jëli indiwu ko ko faa fekkul. maanaam. Modou Lo kon Modou Lo ku ñaan ñàkk. à condition. ku ñaan ñàkk. waaw boo jëndee am. am na yenn xaalis yoo xam ne. waaw buñ ko fayee. waaw te jaral na ko Albourakh. je pèse bien mes mots. jaral na leen ko jaral am na benn xaalis boo xam ne. Ah. bu naree jéggi Modou Lo. waaw ah. ñoo koy wax jëlal lii. dama jël waaw sport la. sport la parce que mbër. waaw na fi ne. man dootuma bëri ak diw. ak waaw. Eumeu Sène taxaw ne man ak Balla Gaye dootuñu bëreeti ci àdduna. parce que parce que parce que parce que. waaw à notre grande surprise dañoo yeewu rek gis ne Balla Gaye ak Eumeu Sène taxaw na. Euh, Iba man li may laaj Lamine mooy c'est l'homme des exclusivités. <laughs> tey dama bëgg si Lutte TV. Ah. ban exclusivité nga ñu mën a may si diggante Modou ak Balla Gaye si diggante Eumeu Sène ak Balla Gaye bàyyi naa la la parole. mais dama dama leen di jox benn exclusivité. waaw gars bind leen. boo xam ne après ngeen gëstu ko. waa Kër Gaston. waaw bàyyiwuñu Modou Lo Gaston production bàyyiwuñu Modou Lo. Ah. Ah. Ah. nii nii. Gaston production bàyyiwul Eumeu Sène. Gaston production bàyyiwul Siteu. Alburax tamit ñi ma leen lemal ñii ñëpp bàyyiwuñu leen. te li ma lay wax nii tey. waaw bu taxawul tey. semaine bii di nga dégg ni. waa Gaston production décroché nañu combat bu mag damay bañ a tooñ. bu mag moo Lo. combat non dama ne combat bu mag. mag lay lay tey. waaw nii nii déclaré wuñ ko tey. waaw yow boo seetaanee sama émission déclaré wuñ ko. waaw jàppal ni dans la semaine. Gaston production dina ñëw. parce que amul lu tax. waaw gars dañ leen a damee pion. te ñoom dañoo nekk di xëccoo alburax nekk di xëccoo. effectivement waa parcelles yi tamit. jàmbaar jàmbaar yi. bàyyiwuñu kon li amoon ci làmb ji ci ginnaaw dix ans après. mu ñëwaat si ñoom Petit Mbaye. moo ñëwaat diggante Petit Mbaye. Gaston Mbengue Luc Nicolaï Luc Nicolaï moo ñëwaat. moo ñëwaat ci diggante Albourakh. ci diggante. Gaston production production. ak Jambar production dama leen ne Jambar production. Ah. ils sont en parce que seen combat bi novembre la. waaw duñ bàyyi Siteu mu dem duñ bàyyi Modou Lo mu dem. danañ ko kale te ku nekk nag danga ngaa kale sa mbër. waaw Balla Gaye waa Albura kale nañ. <laughs> Jambar waa kër Modou Lo kale nañ. Siteu waa kër Aziz Ndiaye bëgg nañ koo kale. waaye nag. coow li dox seen diggante. waaw loolu moo tax. waaye dama la ne. Siteu lu mu mën a am. guddi yi bu jógee ci combat royal. yàlla moo xam. mooy bëri ak Balla Gaye loolu kese la bëgg. c'est vrai que Balla ñëpp bëgg moom. non avant loolu sax. avant loolu sax. léegi beneen question bi balaa ma koy bàyyi parce que Lamine Samba doo ko am bàyyi ko noonu. non duñ ko ak am roi des arènes ak empereur des arènes. Ah. Thiatou ñun bu ñuy commencé lamb. ñun roi des arènes la ñu xam te mbër moo gis buy rêvé day rêvé nekk roi des arènes ba nga xam ne tey ñi fekkee ñi nga xam ne tey ñoo fi jël titre roi des arènes da Yékini da Tyson da Bombardier da Balla Gaye da Eumeu Sène jusqu'à Modou Lô Modou Lô l'acte roi des arènes barki démb ñu jóg Aziz Ndiaye créé fi benn trophée benn titre diggante Tapha Tine ak Balla Gaye 2 ku gagné yaay nekk empereur loolu ban jàngal nga si def. sama maam dafa daan wax ni. waaw. ku miin sa xuloo yab dañoo am ay autorités yu bees ñu ne jub jubbanti jubal li ñu war a def mooy ñëw jubbanti làmb ji parce que ñun dañoo sonn depuis plus de vingt ans structure d'exception CNG nous ne sommes pas une fédération ah, tey boo bëggoon tax Augustin Senghor président fédération foo mu am assemblée générale bu ah. ko assemblée général fale état mu ngi dara ah. donc ñun tey boo gisee lu tax tey lu bari amul ci ñun boo gisee tey lu bari tey dox ci suñu diggante mooy ñun nous pas indépendants ñun dañoo bootu ministre bu ñëw boo fi tegee président CNG tey tey tey ministre bi bu ko neexoon tey mu ne Iba Kane mooy président CNG loolu kenn mënu ci dara jox ko li nga xamante ne moom mooy doxawaay ak fu mën a jëm léegi nag dafa dafa jot ci ñun ñun organisé wu man su ma neexee suba ah. damay tëgg yaaw damay tëgg Iba Kane ak ak ak dama koy tudd dama koy tuddee euh, euh, le drapeau des ma des maréchals. loolu kenn mënu ci dara. Ah. mais ngeen bëgg ko ngeen bañ ko. le roi des arènes du Sénégal. s'appelle Modou. et sant Lo. fa mu ko jëlee. moo sori. manga ko yoroon. Tyson daan ko jël ko ci moom. Tyson bombardier jël ko ci moom. Bombardier Yaxya Diop Yékini jël ko ci moom Yékini la gay jël ko ci moom la Balla Gaye Bombardier jël ko ci moom Bombardier Ama Sène jël ko ci moom Ama Sène Modou Lo jël ko ci moom kon le king de l'arène sénégalaise ah. s'appelle Modou sant Lo mais Demba il faut que ma laajaat ko ah.